inna wali yàlla jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. ñëw bi fii nag moom fii bu ñu fi ñëwee suñu kër la dañoo ñëw fi nga xam ne nii fi lañ fi lañ defee lépp fii moom man ak sama xarit yi ma àndal sama xarit yu baax yi nga xam ne équipe bi ànd nañ toll na ci ñaari weer fi mu toll nii ñuy liggéey liggéey bu am solo tàmbalee ko ci porte à yi ba. ci ci ci parrainage yi ñu ci liggéey liggéey bi mucc ayib bu ñu taxawee def bilan bi mu doon bilan bu am solo mooy liggéeyu terrain ndaxte mbir mi moom terrain la ku la gën a mokkal terrain bi gën la koo ñeme rek moo lay gën a am ay résultat ku ci mel ne sëñ Daawda mi nga xam ne xale la mais daa daa jàmbaare lool moom ak ñi mu àndal ñëpp di ziar sama xarit yi ñoom Malick nga xam ne ñoom laa defaloon ñëpp ñoom ab Ablaye Ndiaye xam dañoo bàyyi seen yitte bàyyi seen yëpp ñëw taxawuñu ñu Moustapha sama sama sama sama sama jàmbaar yi sama rakk lañ mais ay jàmbaar lañ fi mu toll nii ñoom ñooy organiser ñëpp di former gars yi ndaxte bis bi ma ñëwee ba téye leen ñaari fan former leen ci fichier bi former leen ci ni ñuy ne parce que loolu dafa am solo parce que parrainage bi c'est c'est trop technique dafa am spécialité bu am bu am solo bu ci nekk yoo xam ne nii boo deful ndànk rek di nga di nga ci juumte ci njuum ñoom ngoy juum mën na laa dab ba ci fañ koy fañ koy jé fañ koy jébbal daal bu ko defee mën nañ dem ba déposer fichier bi euh, kii bi rejeté ko ñu rejeté fichier bi muy ñu war ci am liggéey ñu war ci am liggéey bu am solo liggéey boobu nag daa laaj dal laaj concentration parce que mbir mi fichier bi ni ñu ko ni mu dëppoo dafa am information clé yoo xam ne ni dañ ci nekk yoo xam ne nii dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax lu ci mel ne commune d'inscription bi moom laa leen di faral di wax nee naa leen carte d'identité boo ko téye lu war a tikke sa mooy commune d'inscription bi moom nga war a njëkk a bàyyi xel muy mbir mu am solo muy fichier bi nii comme ni ko remplir nii moo xam ne nii dix personnes yi nga xam ne nii pare nañ ñu li ñuy njëkk a jël en considération mooy commune d' inscription bi fii ñi fi inscrire ñëpp war nañoo bàyyi xel ne ñi ñu fi inscrir ñëpp ñoo war a bokk commune dix personnes yi ngay dugal fii yëpp boo defee Touba mosquée maanaam war ngaa bàyyi xel ne fukki nit yi nekk ci fiche bii nii ci fiche bi ñoom ñëpp ñoo war a bokk commune moo tax munoo jël ku nekk Touba mosquée boole kook ku nekk Taïf wala ku nekk Daaru Musti wala ku nekk Mbàkke loolu day tax boo demee ba déposé dañ koy rejeté yooyu yëpp muy ay mbir yoo xam ne nii ay lu ñu wa yu ñu war a bàyyi xel la ba tax na ñu ngi ciy amal liggéey bu am solo équipe bi ñu ngi ciy former ay nit fi mu toll nii ñi ngi ci former man mën nañ trente à quarante personnes ñu constitué wu ku ci nekk ñu constitué wu des groupes de sept di ci wéyal ay liggéey yu am solo fépp ci Touba. am nañ équipe yoo xam ne ni ñi ngi keere mbay keere ndaw ba mayel am yoo xam ne dem nañ tawféex bu baax daat ak côté yooyu yëpp am nañ fay équipe ay sura daaru xudoos daaru minam daaru marnaan foofu yëpp am nañ fay équipe yoo xam ne ni ñi ngi wéyal liggéey bi bu ñu gisee cartographie bii ñu def carto am na benn cartographie boo xam ne nii moom lañ def ci dëkk bi moom laay moom moo ñuy moom moo ñuy mën a ñu mën a am vision wu dëkk bi ak commune Touba def ci cartographie bu am solo buñ ku gis cartographie bi nii liggéey bu am solo lañ ci amal dañ lay wan ni Gandiol ñu ne la village polarisé li mu polarisé ci ay ay nit nombre d'électeurs bi dala koy génneel bureau de vote benn bureau de vote la am nombre d'électeurs bi am na 212 lii lépp ci cartographie bi pour ñu am benn vision bu net ci li ñuy xaar non seulement waxuñ ci ci ci ci parrainage yi mais élection yi ñun ñu ngi projeté wu ci élection yi incha allahu rabbi commune Touba dañ ko bëgg a tée téye bu wóor balaa ñuy jàll ci leneen moo tax ñu defar cartographie bi ànd ci ay nit ñu xarala Daaru Marnaan 2 village bi li muy polariser ci ay votants nombre d'électeurs liñ fa am xam nañ ko ak ah, xam nañ la nombre de bureau de vote ya fa nekk loolu yëpp muy liggéey bu am solo boo xam ne ni amal nañ ko ak équipe bi équipe technique ñu amal ci liggéey yu am solo solo solo solo moo tax ñu moo ñu permettre ñu defar cartographie bii nii buñ ciy wëyal dinañ au à mesure ñuy dem dinañ dem ba mën a am vision bu leer ci région bi yëpp parce que région bi da koy commencer ci communes yi dem ci commune d'arrondissement yi dem ci département yi noonu liggéey boobu lañ ci lañ ci bëgg a liggéey muy liggéey bu am solo dinañ ci tàllal loxo nag ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne ni nañ ci yàlla saa borom def ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin parce que liggéey bi dafa am dañ ci dañ koo bëgg a liggéey ak dal parce que ñun li ñuy wax rek ñu am maanaam 2000 personnes yoo xam ne nii pare na nañ leen yoo xam ne ni dal na suñu xel nga xam ne bu ñu demee ba déposé ko dinañ mën a tëdd nelaw xam ne 2000 personnes yi dinañ jàll moo ñu gëm gënal ñu am 10 000 personnes yoo xam ne nii bu ñu demee duñ jàll loolu amul sens liggéey boobu nag dafa laaj dal laaj tranquillité laaj xam li ngay def laaj ànd ko ak ay boroomi xam-xam mooy tax li ñuy def buñ ci demee mu jàll ba tax na gars yi ñi ngi ñi ngi daw ku nekk ngi daw ñaa ñi ñi faral di wax naan ñi nit ñaan ci terrain bi mais ñun bi ñu nekkee ci terrain bi ba léegi yàgg na terrain bi maîtriser nañ ko xam nañ obstacle yi xam nañ li ñuy xaar ba tax na loolu du du lu du loo xam ne lu bees la ci ñun man ak sama gars yi yàgg nañ ci terrain bi port à porte yu baree baree bari def nañ ko ci dëkk bi ba tax na liggéey bi comme ni ma koy faral di waxee rek dafa laaj dal laaj concentration laaj maîtrise ba tax na fiche bi ni ñu koy remplir da nga ko war a xam mu doon lu automatique lu spontané boo ko téyee rek di nga xam fi nga ciy jaar tax na créé nañ ci benn logiciel tamit aussi mu ngi nii mooy t-shirt yi sama gars yi sol nga xam ne boo ku ñëw war laa bëgg laa parrainer li ma leen di faral di wax rek ku ñëw ne da lay parrainer boo jëlee ay filiation ba pare wala avant ngay jël ay filiation sax da ngay teel a wax ak moom mu teel laa wax nga wax ko ne ko bu fekkee ne da ngaa am yéene yi pare ne keneen boo ñu pare ne ba pare wax dëgg yàlla jéggal nañ la ko wala nga pare ne keneen ba pare boo pare ne keneen ba pare bu ñu la laajee nga ne pare nañ keneen pare ne nga keneen dañ naan la jéggal nañ la ko parce que buggu ñuy créer suñu bopp problème parce que kooku noonu nga pareneel bu njëkkee déposé ay parrain ñun ñun bu ñu déposé suñ fiche suñ fiche dañ koy rejeté muy liggéey boo xam ne ni da liggéey liggéey ba sonn ñëw doo am benn productivité loolu lool loolu moom jariñul dara ba tax na mbir mi moom dañ ciy dem ak xam-xam ak euh, pas-pas bu mat sëkk ba tax na lii dañ ko créer dañu créer benn plateforme boo xam ne nii dañuy mën day permettre ñuy vérifier euh, parrainage yi maanaam boo ñëwee ci nit boo jëlee ay filiation am jël lépp mu signé nga jël numéro téléphone am surtout numéro téléphone am boo paree dangay ngay scanner code bi rek lii code QR la lii ngeen di gis nii genre code QR la dañuy parce que mbir mi ay caaxaan ñun caaxaane wuñ ko li ñu ciy def lépp dañ ciy ànd ak ay professionnel yoo xam ne ni dañoo xarala ci wàllum informatique teg ci ay plateforme yu am solo lii ngeen di gis nii code QR la boo paree nee nit ki ba mu jox la numéro téléphone nga photo carte bi rek recto verso boo paree dangay ngay scanner kii bi rek sànni ko gars yi am na gars yu nekk ci serveur yi di surveiller parrainage bi en ligne bu ko defee nañ mën a xool ba xam bi ñuy remplir ñun defuñu erreur ci benn benn benn benn chiffre wala dara parce que loolu da lay permettre ñoom tamit double vérification lay doon daal muy mbir mu am solo ba tax na luy yëpp rek pour firnaal ne mbir mi caaxaane wuñ ko xam nañ fi ñu jëm te am nañ ci yaakaar ne dinañ dinañ dinañ atteindre suñuy objectif ci mbir mi. moo tax ñu ànd ci ay professionnel di ci liggéey liggéey bu am solo. ba tax na leneen li ñu li ciy bëgg a sànni rek mooy wàllum wàllum wàllum daara ji daara ji moom lu yitteel président Abdoulaye si la euh, Cheikh Fallou mii du ma bàyyi ma may wax naka su noonu am na taxawaay yoo xam ne nii am na ci yéene te bu soobee yàlla yéene jooju moom dinañ ko wéyal moom moom bu dara dul dara sax bu mu bu mu li may faral di wax rek koo xam ne nii bi mu bi mu séntuwul dara ci nit ñi la daan def ci askan wi asamtumalaak boo xam ne nii am na loo xam ne mi ngi koy yootu ba tax na souvent li ma li li may wax rek moom moom deful dara ngir séntu ci dara lépp lu muy def rek da koy def te yàlla suñu borom tax ba tax na moo tax lépp loo xam ne ni mi ngi koy def da koy def ak teeyaayu bakkanam def ko ak dal ak ndax da dal lépp lu mu la mayul lekk du la ko xañ ba tax na ñu noonu la ñu faral di liggéeye noonu la ñu tàggatee tamit moom noonu la ñu tàggatee noonu la ñu yaree moo tax lépp lu ñuy dem rek dañ ciy dem dal dem ceeg dal ak dem ci surtout ak taalibe ndaxte taalibe moom mooy lépp taalibe moom moo ëmb na lépp boo amee taalibe rek am nga lépp ba tax na daal ci tànk yooyu lañ nekk muñ ci mu entraîné ñu ci yar ñu ci moo tax ñu ciy doxalee noonu ba tax na daara ji moom dama leen ci dalalal seen xel yéen ñëpp yéen wax ne lépp loo xam ne nii war nañu ci lépp loo xam ne nii woo ngeen ñu ci bu soobee yàlla ak sunu borom ci kàttanu Serigne Touba dinañ leen ci jàppale ba ngeen xam ne jàppale nañ leen ci. incha allahu rabbi daara ji di loo xam ne ni dañu cee boole daara ji lu ñu bokk la ñun dañ cee bokk ndax boo duggee boo dëkkee ci gox nit ki samp fa lu rëy parce que daara jàngale alxuraan rek jaamu yàlla bu kawe la jaamu yàlla mënu koo gën a kawe nga ngay ngay jàngal di tatak di di di jàngal ay doomu aadama di yar ay xale yar ay xale rek jàngal leen dugal seen bopp alxuraan loolu rek doy na jaamu yàlla ba tax na daal loolu moom du kenn kenn duñu ci duñu duñ ci woo te kenn du duñ nangu kenn jiituñu ci bu soobee yàlla dinañ ci dinañ ci saf sàpp incha allah rabbi di leen jéggalu nag ci ci toogaay bu yàgg bi di leen sant bu baax di leen jaajëfal yéen ñëpp. ñoo ngi nuyu ñëpp kàddu gi nag ñu ngi koy waxee ci kàddu sëñ Fallou Diop ak soxna Maam Mbar Mbacke moom sëñ Bas moom sëñ Fallou sëñ Ablaye tamit dañoo won aw yoon wu ñu ko ñimee ndax dafay def lu rëy ci daara ji te waxuñu ko ne dimbali ñu ko waxuñu ko ñu def ci lenn moo ko def ci coobaree boppam wax ji moom dëgg la danoo ne ci tamit xare xare bi nag dantité bi mooy paaka bi dantité bi moom mooy jaasi ji ji koy ji nga xam ne bii mooy yeggale xare bi te man am naa yaakaar de dama ko waxoon keroog kër Ndeye ni laa koy waxee fii rek. ndax fii nag koñ bi moom nag si la loo fi bëgg nag di nga ko war a mën a am ndax sab yar may na la ko say teggin may na la ko te sa waajur it wax dëgg yàlla ku baax la wax dëgg te sa magit dafi doon jëf amaa lii di ñoom kon am naa yaakaar ne di nga fi jëlee dara. maa ngi sant ñëpp di gërëm sëñ Malick ak Ablaye Ndiaye sama doom jeeg ñoom ñëpp yéen ko ne yéen ñëpp ndax yéen ñëpp samay doom ngeen bu ngeen di tuut tànk ba léegi ñoo ngi yéen kon yaakaar naa lu ngeen fi bëgg moom dina sotti yàlla na nu yàlla yeggaleel daal ci kàttanug yàlla ak màgg ak yonent bi